Je rends grâce à Dieu d'avoir eu la possibilité pour la plupart des Sénégalais d'accomplir ce devoir citoyen qui est très important. Il s'agit de choisir. Si vous parlez un peu plus fort, parce que le vote s'est très bien passé. Les échos aussi qui nous parviennent de l'intérieur du pays laissent penser que jusqu'à présent, le vote discussions sont, sont bonnes. Je pense qu'il n'y a pas de doute à l'issue de la journée d'aujourd'hui. On devrait connaître le prochain président de la République. Le moral est très bon. Nous avons fait ce que nous avions à faire, c'est de faire le tour du pays, de présenter le, le programme il y a un programme de consolidation, d'approfondissement, d'accélération. Euh, de tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Donc nous allons consolider, nous allons approfondir, nous allons accélérer, nous allons améliorer et nous irons plus vite. Ah, ah quel est Je le pense que tout cela va se passer dans de très bonnes conditions. On espère. Quel est le message que vous lancez Le message que nous lançons, c'est un message de paix. Le Sénégal nous appartient. Nous, nous sommes tous des enfants de ce pays. Nous avons compétit. Euh, la campagne électorale s'est bien passée. quand bien même elle a été courte, en tout cas elle s'est passée dans des conditions assez particulières, elle a été courte, mais dans la sérénité, dans le calme, il n'y a pas eu de, de, de, de, violence, en tout cas, euh, n'a pas été signalé de violence euh, excessive. Je pense que, je pense que c'est, on peut espérer que tout cela se terminera très bien. Mon souhait le plus ardent, c'est que demain matin, que les Sénégalais puissent connaître le prochain président et qu'ils puissent vaquer tranquillement à leurs occupations. Vous êtes confiant pour le premier tour Gagner les élections au premier tour Je suis très très très confiant. Je D'accord président ñi def ko ci wolof. waaw jërëjëf kon dañuy sant ci yàlla julli ci yonent bi euh, ñëw nañ fii tey ci suba fi ñu ko doon faral di defee woote euh, nañ ko defee gis nañu aussi conditions yi baax na li ñu dégg gum ci réew mi ba tey jii. mooy nit ñaa ngi woote ci jàmm ak salaam ñu ngi ñaan sénégalais ñu génn dem woote ji parce que waxtu bi dañu war a wax waxtu bi dañu war a tànn kii nga xam ne moom mooy jiite réew mi euh, def nañu campagne électorale ci jàmm ak salaam euh, coow li bari woon na waaye li ci ëpp jàmm ak salaam la amee loolu nag mooy Sénégal euh, mën nañ di werante mën nañ xëccoo mais ñun ñoo bokk day ñun ñoo bokk baay ñun ñoo bokk réew te réew moom important fi mu nekk nii mooy na yëpp jeex jàmm ak salaam euh, suba Sénégal xam kan moo war a nekk président de la république yaakaar nañ ni li nga xam ne ñun wax nañ ko ak li nga xam ne def nañ ko ak li nga xam ne gis nañ ko ci mbooloo jàpp nañ ni ñun ñii la war a nekk waaye suba bëgg naa daal sénégalais yëpp bu ñu xëyee. ku nekk dem ci sa soxla dem ci sa aajo. am nga yaakaar lépp ci jàmm ak am nga yaakaar gagné ko ci ci premier tour. waaw am naa yaakaar bu baax nag am naa yaakaar bu baax ci li ñu gis li ñu nit ñi won ñu leen di sant bu baax di leen gërëm parce que ni ñu nit ñi doon dégloo ni ñu toppee ci campagne bi doon na loo xam ni dal na suñu xel li ñu bëgg mooy liggéey bu tàmbali bu gaaw bu ma sañoon suba gannaaw suba gën baa tardé nekk ci liggéey bi ndax réew mi soxla na ko. parce que loolu yittewoon nañ ko xale yi mag ñi jigéen ñi góor ñi Sénégal yëpp bëgg nañu am jàmm loolu lañu ñu wane ci campagne bi Sénégal jàmm la ñu bëgg loolu la ñu wane Sénégal li bëgg mooy bokk nay loolu la ñu wane Sénégal lu ñu bëgg moom mooy kuy jublu ci seen i soxla ànd ak ñoom jéem ko saafara loolu la amoon li may wax ma leen sant leen gërëm jërëjëf jërëjëf monsieur le président Ah d'accord, ça va Ça va, j'espère que ça se passe bien. Merci. Ah d'accord, c'est vrai, c'est vrai. Ça va bien Ça va, merci. Ça va, merci. géew bi nag bëri na géew bi nag bëri na géew bi nag bëri na géew bi nag waaw waaw Sénégal waaw waaw waaw

maa leen jóobi maa leen jóobi nag Thanks. président, il faut tourner par là. Président, ok, président par là. Président, ok. Ok, na mu jël ci ñun, mu jël ci ñun. Mu ñëw ci waaw waaw waaw. Bon sens Bon sens. Bon sens. Amlek. Oui. Madame la Présidente,